info Fatim Ndiaye dafa rek daal di dikkaat ci di Didier ji ak Fulbert Sambou la mu ci xam ne nag mooy euh, ni euh, kii di Ismaïla Madior Fall nekkoon fi ay jamono ministre de la justice daal dina ci yëyàbbi kàddu yamu yëkkati nag journal bi ab bomb la ko tuddee ba noppi nag daal di xam ne ni moom Ismaïla Madior Fall ginnaaw bi mu yëkkatee yooyu le kàddu dafa rek daal day làkkatu ci li ñuy woowee ab lapsus euh, ku ci euh, mel ni euh, Mimi Touré yëkkati na ay kàddu la mu xam ne nag mooy ni Ismaïla Madior Fall est mis en est mis en demeure et nul n'explique aux Sénégalais et dafa war a expliquer Sénégalais yi lan. mooy lien bi dox diggante wala bok rapport bi dox euh cas de disparition yi par noyade yi ñu ni euh, moom moo am ci Didier Badji ak koku di Fulbert Sambou ak euh, walu événement politique yi ku ci melni Pape Alé Niang moom itam yëkëti na ay kàddu mom nak né déclaration bi di ismaël Madior Fall def euh, dafa garaaw loolu té it ki nga xamanténi ni modi Ismaïla Madior Fall bu waxé ni disparition ou ñaari gendarme yooyu le dafa bokku ci li di événement politique yi diggante 2021 ak 2024 dafay mel ni kuy dëggal njortu li nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko ci bobulé dossier Fatim ah, ñu seeti yéen kaay bi di l'éveil en Euh, yéenekaay bii di euh, l'éveil dal day euh, fësal ci nataalam bu ci xëtam bu njëkk nataalub avion di wax ni atterrissage ca AIBD bu premier vol Delta Airways dak dak aks Dakar Rome dina dal dinay tàmbali lu mooy loolu yéenekaay bi wax na itam ci téeméeri fan yi nga xamante ne ni régime bi def na ko ci pouvoir bi ak kàddu yi ci Euh, Abdoul Mbow euh, mi nga xamante ne nii moo jiite groupe parlementaire euh, Benno wax moom nag nee na nguur gi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk ba ñu fi nekkee ak léegi téeméeri fan waaye téeméeri daanaka li nga xamante ne nii moo di ay erreur wala boog njuumte moom la ñu gis ci lii di seen ab gérance fële ci Mauritanie yéenekaay bi daal dinay xamle ni lu tolloog quatre-vingt-neuf corps yu ay migrants euh, yu euh, ñàkk seen bakkan ñoom lañu ñu rek dal di ndax dañu jëloon yoonu géej gi doon dem fële nga xamante ne nii moom moo ji bitim réew sabar ba nga xamante ne nii moom moo amoon ca diwaanu Louga ñu euh, dal di cay nemmeeku ay xale yu ndaw yoo xamante ne nii dañu doon fecc di wone seeni cër ay mag di leen filmer procureur dal di nay xamle nii teg nañ ci loxo lu tolloo ko juróom ñaari doomu aadama vingt quatre heures

ñom ñëpp euh, dañoo faatu euh, yenen 30 corps yo yenen 30 personnes yo xamantene ni euh, dañu leen sauver la ca dess nak ñom ñëpp daanaka jamono ji ñuy àddoo ngeen di teewlu dañu leen porté disparu lu lolu yene kay bi dal dinay dikkaat ci coowal présence bu président de la république ci conseil supérieur de la magistrature ak yi nga xamante ne ni moom jiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay dal dina ko cay yëkkati di xamle ni euh, nekkinam fofé ci conseil supérieur de la magistrature euh, du ab obsession euh, lu moy lolu batay ci xëtam bu yene kay bi dellu ci wat ci coowal usine de dessalement Aqua Power Arabie Saoudite li nga xamante ne ni moom la ci ministre bi xamle moy ni le Sénégal dal dinay annuler contrat bo xamante ni mi ngi toll ci 459 milliards. L'informateur.

yéenekaay bi euh, ci euh, li nga xamante ne nii nag moo soxal séddaleeg euh, séddaleeg séddaleeg jiw gi jiw gi ki nga xamante ne nii ñoo di béykat yi daanaka ñu ngay ñaawlu bu baax a baax qualité gerte gi ak quantité bi nga xamante ne nii moom la jot am ngir def jublu ci li di nawet bi. le soleil yéenekaay daal day euh, dellu si ci euh, jébbal gi ñu jébbal euh, rapport assise de la justice yi la mu xamle nag mooy nii dañuy dem rek vers une application rapide des conclusions maanaam daanaka lu lu ndaw moo des ñu jublu ci jëfee li nga xamante ne ni moom la ñu jotoon tënk ci yooyule assise ba daal di bind rapport bi daal di koy jébbal ki nga xamante ne ni moom moo di président euh, leneen loo xamante ne ni euh, yéenekaay bi euh, dikkaat na ci mu di ab njàngat wala boog ak taxaw seetlu bu yaatu bu mu def ci li ñuy woowee ay chantier titanesque de suivi Révélation Yénékay. Révélation Fatim Ndiaye dafa dellu si ci euh, rapport des assises de la justice euh, la mo Moini xam le nag Moinu ni euh, président le mu bëgg moy ñu rek jublu ci la mise en œuvre ci nu mu gën gaawé gaawee leneen loo xamante ni bi dal dina ci mu soxal Mansour Faye mi nga xamanteni ni ci lu jëm ci walu journée setal bi ñu war a am mu ngay sàkku eh, ci eh, askan wa yeewoo ca eh, Saint-Louis ñu daal day teertu ki nga xamante ne ni moom moo ci usmaan Sonko teeru bu màgg ñu dem seeti tàggat yaram dañu koy dooree ak yéenekaay bii di eh, tribune sport mi nga xamante ne nii daal di nay àddu eh, ci désorde bi nga xamante ne nii moom la ñuy nemmeeku ci eh, grand combat yi nga xamante ne nii daanaka laata ñu ko siffler dafay fekk mu guddi loolu la mu ca xamle nag mooy ni waa CNG dal di nañuy jël ay mesure yu am solo en attendant lu mooy loolu yéenekaay yéenekaay bi dikkaat na ci huitième de finale bu euro 2024 la mu ca xamle nag mooy ni Espagne ak Allemagne euh, un offensive en vue ndax ñom ñoo wara dajé France Portugal ñaari équipe yo xamante ne ni euh, nañu euh, bu euh, baaxa baax. Nous terminons la revue des titres avec le Dakarois Sport. Le Dakarois Sport daldi di ci mbiru lamb ñu gën ko xam ci sport de chez nous la mu ca fësal nag mooy nataalu Modou Lo roi des arènes ak ki nga xamante ne ni moom moo di Siteu ñoom daañu euh, amal ab face à face euh, dimanche incha allah waaye loolee nag euh, huis clos lay doon amul kenn koo xamante ne ni daañu la may nga dal di teew ci boobule face à face. mu nekkoon li gën a fës ci yéenekaay yi ñu doon leen ko dégtal ma àndoon si ak sama naataango euh, Fatima Ndiaye dañuy euh, ñëw nag fas yéene soobu ci euh, ponk yi ñu war a waxtaanee maa ngi leen ko doon junju ci sama njëlbeen bi a wax immigration clandestine mi ngi wëy di def ay ravage donc ñu gis ni ci. Euh, fan yi ñu génn euh, ab pirogue wala boog ab gaal bu defoon téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari migrants moo rek dal day suux ci booru benn